baxdal xasbala wa baxdal basmala wa baxdal xamdala wa baxdal xawqala dañuy baaxe senegal yi benn bayt boo xam ni ku tedd ki moo ko bind mu bokk ci nekk ci biir masalik maanaam di ci junji ci wàllu xam-xam ak dimension maqaama ni du càggee na rek ñoo ñu daan tudde ay yonent wala ñu ñu daan tuddee ay awliya wala ay ay nujaba wala ay salihin. du tiagne ne ñooñu rek ño upp xam-xam mba ño upp maqama ci yalla ku tedd gi daf ko misal rek ci manam taw bu waaj taw ndox yi mi ñëk di dal ndox yi mi ñëk di dal man lañ ko tudde daw tudde comme ndox waye bu waamee mi dikke nak di soteku nak da dul maanaam mësay bëndëng loolu la ñuy wax mësay bëndëng mooy taw buy waaj di def ay ndox ci la ko misaal bayit wi nag dafa doon fanweeri lettre ak juróom-ñett fanweeri ak juróom-ñett fanweeri ahruf ak juróom nag boo xoolee trente-huit trois ak huit onze la kooku daf lay jox victoire kooku da nga koy yóbbu ci awal yàlla mi nga xam ne moo jëkk moo mujj yàlla mi nga xam ni moo nëbb moo feeñ al awal wal aaxiru al batinu wa zahiru victoire la moom la lider yi di tàllal nii seen ñaari baaraam bayit wi victoire la kon bayit wi rek daanaka di ko jàng moom ci kuy wut victoire day am solo kuy wut maanaam réussite ci dara waaw mbaa suc mbaa succès waaw fa tallu xad yabdu amaamal wabli wal fadlu lil waabili laa li talli mooy bayit wi hmm. li ma ciy baaxee tout en qui France bien une fine pluie pourtant devancer une abondante mais l'avantage est pour l'abondante et non et non pour la fine une fine pluie pourtant devancer une abondante mais l'avantage et pour l'abondante et non pour la fine. Baby moi fatalu khadiya budu amam al wabli wal fadlu lil wabli la li talli lolou limi firi rek moy mesey bendeng mën na feñ jitu wame waaw manam buy tambali taw ndox yu ñëk yi yoy moy mesey bendeng waaye nee nag wal fadlu nee na nag li gën nag mooy lil waabili waaw nee na daal waame wi daal waaw waame waame wi daal wax dëgg yàlla waaw mooy dara fala fala ngëneel la nekk nag waaye paa ci masa yi paa ci masa yi bëndang wasalaam